jooju ci Mbàkke mu ne wóllëram mu ne ànd bu rafet bu mat sëkk mu ne ca njëriñ la yemul fenn mu ne loolu mu ne loolu wóllëre rek ci lay aju mu ne Amadou Ba mii wëllëreem la mu ne suñ borom moo santaane sàmm wëllëre mu ne day tëj diggante ak moom mu ne ngeen xam ne Amadou Ba mii wëllëreem la mu ne di ko sant ko gërëm mu ne fa tabaarakallaahu taxawaayam rafet na lool mu ne lim mën lépp ci lu baax mi ngi koy def mu ne di dox doxinu rafet mu ne kon na xelam dal bu baax a baax alhamdulilah mu ne suñu borom mooy def mooy dindi mu ne tax kenn ku ne moo la gën a xam sa bopp mu ne gën la yëpp ci sa bopp mu ne kon suñu borom yomb naa jëflanteel nañ nekk ci luñ war a nekk rek buñ nekkee ci luñ war a nekk mu ne ni ni ko waxee rek moom moo ñu gën a xam suñu bopp moo ñu gën it ci suñu bopp buñ nekkee ci li war a nekk mu ne lañ ci war a fekk lépp danañ fekk danañu fa fekk mu ne kon nag Amadou sama wëllëre la mu ne li muy li may dénk sama bopp rek moom la koy dénk mu ne kon jërëjëf ba mu noonu rek la demee incha allah. mu ne suñ borom moo moo digal ñu sàmm wëllër gi. ni mu ko diglee itam. mu ne dina ko def ci digganteem moom mi ak yow. loolu rek mooy li ci nekk. mu ne jërëjëf. jërëjëf doy na li li firnde firnde nañ talal loxo yi nu may ko tuuti nag ñun ñëpp génn. waaw wax ak ñoom ñaari baat. waaw te ñun ñëpp génnoon na nag. bàyyiwuñu kenn. waaw. amiin Mbacke. amiin amiin Mbacke yaa rabbi. waaw waaw fii fii fii rek la de. amiin fii fii rek la de amiin Mbacke. boo nu ñaanalee benn noonu la ñaanal junni nga yàgg fi teewee. amiin yaa rabbi amiin Mbacke. sëñ Amadou Maxtaar sant na la Daaru Xuddoos gépp sant nañ la yoonu murid sant na téeméeri at sëñ Bamba yi beesalaat nga nu peq beesalaat peq Mbacke mun ya rabbal xër moom bii nga fekkee xam ñu fekkee nga na nañu may Amadou nag